salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen ñu seetaan am nañu mbégte ànd ak yéen tey ji nag ñu nekk fii ci Saint-Louis di Sénégal euh, li ñu fi nag lépp jëm ci wàllu mode muy événement bu mag bi nga xam ne As Création moom moo ko doon amal waaye nag euh, tey ñu ci ànd ak waa va ak Actu waaye tamit ànd ceeg euh, chaine bu mag bi nga xam ne ñoom la ñuy wax Fun Prod ak seen Souriante TV ñu fas yéene cee ànd ak yéen waxtaane lépp loo xam ne nag jëm na ci fànn gu nu mel waaye nag ñu ànd ci ñi nga xam ne ci secteur boobu la ñu nekk waaye damay bàyyi Ndeye Fatou Diouf moom Fun Prod mu nuyoog ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci 24 euh, actu Fun Prod ak Souriant TV Ndeye Fatou. Euh, merci El Hadj Ousseynou asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi comme niñ leen ko waxee woon ba tey ñu ngi fi nga xamante ni moo di ndax ci 72 heures as création ànd si ak waa Fun Prod waa 24 actu ak li nga xamante ni moo di Souriant TV si seen émission ñu ngi bokk plateau bi ak ndaanaan yu mag yi nga xamante ni ñoom ñooy euh, organiser défilé yi nga xam mooy Saint-Louis ak que lu mel ni nuyu di njàmbur ku mel ni Bamba Fall Bamba Fall nuyu naa ma bàyyi nga nuyoog mbokk téléspectateurs yi lay déglu. waaw ah, salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum monde maa ngi nuyu ñëpp ñi am mbégte nag teew fii nag diwaan Ndar nag 100 euh, pour cent mode ànd ak sunu doomu lay As Création. merci. Euh, naa la. maa ngi fay bu baax a baax a baax a baax. nga nuyu ak mbokk téléspectateurs yi lay déglu. salaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi. bàyyiwuñu kenn ñi ngi nuyu ñëpp ku nekk ci turam ak santam di nuyu tamit ñi ma bokkal plateau bi ñëpp euh, di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax masa coona tamit ñoom ñëpp puisque depuis ba événement bi commencé ba léegi amul kenn ku ci toog di ma seetaan du début à la fin ñi ngi ànd man donc di leen masawu coona bu baax a baax a baax a baax di leen nuyu di leen sargal. voilà euh, jërëjëf euh, As ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ma bàyyi euh, suñu gan yi des ñoom tamit ñu nuyoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ñu ànd ak Miss Saint-Louis Miss ñu ngi lay nuyu ma bàyyi la nga nuyoo. asalaamaaleykum maa ngi tudd Hawa Miss Saint-Louis 2019 maa ngi nuyu téléspectateur yëpp. merci beaucoup ñu jox tamit Tra moom tamit comme ni ñu leen ko waxee woon ci secteur bi la nekk ci lay yëngu Tra ma bàyyi la nga nuyoo ñi lay seetaan. waaw ñu ngi nuyu ñëpp euh, di ziar ñëpp waaw di bëgg ñëpp. Euh, merci Tra kon xam naa dañuy tàmbali euh, Ndeye Fatou ñu tàmbali waxtaan bi rek voilà ak Paul Paul avant loolu ñu jox Paul Paul ma bàyyi la nga nuyoog ñi lay seetaan. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di bëgg ñëpp di ziar ñëpp. waaw ah, man la Paul borom chef d' agence Modou naa Sénégal. voilà merci beaucoup nuyoo bi am na solo kon dañuy ànd rek euh, ni ñu leen ko waxee ci lépp loo xam ne jëm na ci waxtaan bi nga xam ne nar nañu ko amal fii ci Saint-Louis di Sénégal waxtaanee lépp loo xam ne jëm na ci wàllu mode waaye nag li ñu fi dajale euh, As Création tey amal événement bu mag As ginnaaw nuyoo beeg yëpp ñu naka nga def ba organiser li nga xam ne nag mooy euh, sargal Pikine 2019. c'était un peu difficile donc mën naa wax ni mais loo gis lu nekk rek dafa am ci commencement am ci fin tamit mais ndax loo gis tam dafa am avant pendant ak après donc ci ñetti pàcc yooyu bu ci nekk am na lu ñu ci dund li nga xam ne difficulté am na ci waaye nag dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax donc ndaxte boo yeewoo tey jii mu nekk le veille de l' donc nga sentir que lu bari am na lu abaissé wu donc ñun te ñun li ñu si doon gën a dem ak loolu li gënoon tax ñu gënoon ko bëgg def mooy satisfaction euh, la population de Saint-Louis plus particulièrement la population de Pikine donc te defe naa ni tey euh, ñëpp ñi nga xam ne ñu def nañ déplacement ñëw ci événement bi euh, ce qui m'a fait plaisir mooy dama ciy jël des fois benn par benn di leen laaj seen avis événement bi nu mu demee mais avant may laaj ñi fi dëkk damay laaj ñi gan si yi ba pare donc bi ma laajee gan yi ñoom satisfaction totale lañ ci am donc amaana peut-être mën naa sentir que ni ñi dëkk tamit Pikine dëkk Saint-Louis am nañ satisfaction ci événement bi ndax c'était pas évident c'était très difficile d'organiser une telle chose waaw c'était très difficile quand am na ñeneen ñoo xam ne bàyyi ko woon nañ ci yeneen dëkk yi ngir ñëw loolu lan lay def ci yow ci événement euh, nekk lu rëy ci man. ndax euh, boo xoolee daanaka presque la plupart ci ñekkoon ci événement bi ñëpp dëkkuñu fi donc y des étrangers yi nga xam ñëw nañu donc mu nekk ay benn mbir nag bi nga xam ni euh, ñun ñëpp ñoo xàccandoo doorandoo ci événement bi donc nit def déplacement jéegoog jéego ñëw sa dëkk uniquement ngir si événement kooku amoon benn njukkal boo ko mën a delloo loolu di ko sant di ko gërëm donc mu nekk li nga xam ne nag euh, tax na ñu gën ma respecté tax na nit ñi daan gën xam ni peut-être que li doon def wala li doon jaabante depuis presque quatre mois cinq mois nga nekk ci di ko dox c'était ça donc tey dajale des gens devant tout le monde ñu xam ni donc am nga ay gan yu jógee ay dëkk-dëkk uniquement ngir sa événement. voilà donc loolu ça m'a fait beaucoup de plaisir xam naa dinañ ci gën a dugg ci biir waxtaan bi euh, Ndeye Fatou bàyyi la ak yeneen invité yi ñu doxal waxtaan bi ci mode. merci Euh, ñuy dalal Bamba Fall promoteur niwi du Ndiambour ñoo bëggoon xam lan mooy Nuit du Ndiambour lan moo lan moo indi Nuit du Ndiambour waaw merci euh, avant tout bala may ñëw ci Nuit du Ndiambour bi li may njëkk a def mooy dañuy féliciter sunu sunu naataango bi muy aas vraiment muy événement bi mu tekk muy 100 pour cent mode sargal Pikine muy première édition tey jii li ko mën a wax spéciale à lui parce que boo xoolee tout début est difficile yaa ngi dégg mais boo xoolee première édition bi bu nga ñëwee danga naan lii est-ce que du ay cinquième édition wala dixième édition parce que def na loo xam ne macha allah def na le paquet parce que y avait du monde y une bonne organisation aussi euh, y a la qualité euh, qualité bi am na ci parce que ci plan parce que bu ñu xoolee collection yi gars yi def ak yooyu yëpp nice na trop macha allah kon li ñu njëkk a def mooy dañ koy remercier mu nekk koo xam ne fierté la. fierté la euh, fierté la euh, ñun ñëpp parce que ñun dañ koy tiitaroo kon merci euh, As comme ni ñuy wax rek waaw Nuit du benn événement la boo xam ne dañ koy tekk depuis 2006 ñu def ko ci mu nekk benn activité boo xam ni concernant la diversité culturelle ñu thème bi di nekk promouvoir le développement de la localité Louga mu composé danse musique ak mode nag voilà voilà xam naa dinañ ci dikk bu baax a mais yéen ñiy organiser xeetu événement yu mel nii lan mooy jafe-jafe yi xam ne da koy jànkonteel ci événement yi parce que yombul nga organiser événement yoo ne da ngay euh, dajale ay nit dundal leen en même temps aussi dépenses yi bari na trop waa dépense yi bari na parce que déjà pour nga teg ces genres d'activité il te faut des millions parce que lii fale xaas moo koy def parce que boo xoolee fii pendant trois jours nit ñi nga obbi nga parce que ku nekk jugee nañ fa maanaam fu ne jóge nit jugee nañ fa logement yi macha allah ku ne xam na ni euh, wàllu restauration ak wàllu hébergement dafa metti kon loolu il te de million pour nga ko def te parce que bu nu xoolee fii tey booy teg programme doo gis ku la jàppale mais yaay dem ak sa dynamisme ak sa volonté ak sa détermination jël say propre moyen nga def ko ci ku ku ñëw baax na ku ñëwul baax na parce que difficulté yi ñu ciy jàkkoonteel dafa bari parce que da ngay dem ba au dernier moment li ngay yaakaar doo ko jot gars yi dañ lay promettre promettre la promettre la ba tax ba li nga bëgg sax au fond doo ko am. merci beaucoup Bamba ñu jàll ci ki nga xamante ni moo di Tra borom Traxel si les modes Tra nuyuwaat naa la. Tra sa slogan boobu lu mu signifie. Traxel style tra. C'est une euh, conjonction de, de mon nom, tra, de mon appellation, et d'Axel qui m'a tout appris dans la mode, en fait. moom laa tuddee sama structure qui est une structure de coordination mode. kon daal da ngay delloo comment tu as dit. Tra et Axel. ma contacté delloo Axel Njukkal. exactement. Tra bi nga nekkee ci défilé ba léegi yow nan nga ko jàngatee. par rapport ak euh, événement As. ben disons que pour une première c'était une réussite ci plan euh, créativité ak euh, nit yu ko assisté qualité nit yu ko assisté ak euh, produit défilé bi en fait parce que finalité bi mooy rendu bi en fait. image yi dina témoigner loolu c'est un défilé riche en couleurs et puis il y eu du potentiel en fait qui reste certes à comme majeure partie des événements au Sénégal mais pour une première pour man c'était une réussite euh, juste à l'encourager pour yeneen édition yi gën a dem di lancer tam euh, appel à autorités yi ak yu bari yu nekk que ça soit au Saint-Louis te mooy problème événement de mode nekk Sénégal yëpp amuñu benn appui ci autorité étatique yi ak lenn ñu gën a jàppale dina permettre en plus acteurs yi gën a gën a booloo parce que tu sais euh, as mën na def événement am tamat leen di def Saint-Louis Fashion Week que Baye Fall façon euh, festimode keneen mën na ci ñëw mode Saint-Louis moo ciy gagné. kon donc na ci waa Saint-Louis principalement acteurs culturels yi acteur de mode yu Saint-Louis jàpp ci nekk ci ginnaawam comme moom ni muy nekkee ci ginnaaw Baye Fall nekk ci ginnaaw tàmmat leen wala keneen kuy organiser autorité tam ñëw jàpp ci. waaw parce que un événement de mode c'est des moyens waaw jëlee nit yi que ça soit Dakar Louga fu mu mën a nekk faudra les héberger nga restaurer leen ñii nga fay leen ay cachet ñii nga transporter leen et puis c'est pas évident. voilà euh, Miss Saint-Louis yow yàgg nga ci euh, podium yi euh, yan affinité nga am ag As ba tey nga ñëw événement am ngir jàppale ko. As je peux dire c'est d'abord un frère mu nekk benn jeune créateur bu am talent bon je peux dire sax bi ay défilé ma xam ni il est de Saint-Louis après ñu jàppante affaire yooyu noonu. voilà noonu ngeen jàppante ba ba nga ñëw ci événement bi la naka nga gise événement bi d'abord. bon événement bi vraiment c'est une grande réussite koy féliciter. ci te ci mooy benn yoon boo xam ne moo koy amal euh, gis nga ni macha allah. je trouve que c'est à encourager parce que as ñu mel ni as bu ñu ci amoon ay deux trois je pense que mode Saint-Louis dina avancer parce que il a eu l'audace quand même samp fi quelque chose def fi benn événement. et pour une première vraiment c'est une réussite c'est à féliciter aussi. Euh, pour avancer très rapidement ñu ñëw ci euh, Paul euh, Paul est-ce que mode mi ngi dund ni mu waree. bala maa commencé wax nag damay remercier As mi tax jotaay bi am fii bon As vraiment c'est un grand parce que tey bon dajale ay nit def événement yombul xaalis bi et organisation bi lépp fexe na ba mu jaayante na ko quoi. bon c'est à féliciter vraiment as yàlla na jëm kanam. nga ñëw ci sama laaj bi est-ce que Modou mi ngi dund ni mu waree wala mi ngi dundal ñi ci nekk. bon Modou nag man bokk man ak sama niveau am nga man bon euh, ni ma ko jàngatee Modou demeegul noonu. demeegul noonu. demeegul noonu cest à am na lu des. waa dafa des lu bari sax bon je pense que comme grand tra ni mu ni mu ko waxee sànq booloo bi aussi daf koy laaj ak aussi les autorités ak partenaires yi. comme ça ñu ñëw jàpp ci mode bi gën a jëm. donc da ngeen gis ne autorités yi ci war a jàpp am na lu ci def defuñ ko quoi. waaw yow jàppuñ ci moom yow vraiment vraiment parce que bu buñ ci jàppoon mode sénégalaise dépassé na fii quoi. en que formateur Paul euh, nan ka ngay dundee milieu bi. waaw bon milieu bi moom dafa metti parce que tey bon dajale ay xale bëgg leen former def leen ay professionnels yombul quoi c'est pas facile bon da ngay daje da ngay dajanteel genre. jigéen bu nekk góor bu nekk man mannequin bu nekk wante tamit bon yow yaay muñ ba sa xol di nga rencontrer parce que tamit yow jikko yu bokkul quoi. kon baax na ñu jàll ci leneen ma bàyyi El Hadj Ousseynou Ndiaye àggali wax. voilà euh, kon damay ñëwaat rek euh, ci As mi nga xam ne moo waral euh, wax ji tey moo waral ñu nekk fi donc As est-ce que créateurs yi ñi ngi créer dëgg-dëgg askan bi soxla. waaw mën naa wax ni waaw parce que. Euh, créateur moom souvent foo ko fekk la plupart dañ leen di demander a day am dama bëgg dara mais ça dépend ci sa design bi nga bëgg yaay choisir mais des fois tamit créateur da lay da lay choisiral design des fois mu mu mu mu mu choisir la li nga xam ne yow day tombeek sa goût donc mais ku si nekk balaa nga koy créer war nga ko xam lan mooy góom ba pare nga doo koy nga koy da nga doo koy créer li mu bëgg donc création nag dafa am sukkandiku pour xam ko c'est parce que nit ku nekk boo ko xoolee Euh, dafa am goût ni chaque personne a son goût maanaam da xam ne kii exactement lii la war a sol ak lii la warul sol kii lii moo ko jàpp ak lii moo ko jàppul parce que création mën sañ sa taxuta mën a créer lépp mi ngi commencé presque ci choix couleur par exemple donc chaque chaque personne tamit da nga am sa goût couleur donc couleur boobu ngay choisir c'est pas que yow yow mi créateur da nga war ñëw forcer ki nit ki donc avant tout da nga ko war demander avis ba pare la mooy couleur couleur préférée am doo koy mën a am pour créer ko dara donc euh, création nag dafa bëri ay motifs des am na création yi nga xam tu sais que ni li ngay créer nit nit da war a sol pour dem ci benn cérémonie mais quel genre de cérémonie. donc euh, li fa war a dem donc mais c'est pas que da nga war a parce que tenue de soirée kenn du ko yóbbu quand ci ay jàng ou bien nga sol li nga xam ni tenue tenue plage kenn du ko yóbbu soirée donc des nga gis nit ki nga xam day sol benn tenue bi nga xam ni dem plage te mu waroon kii tenue mu sol tenue de soirée donc des fois mélange day am te yooyu yëpp nag pour nga mën ko xam exactement yow style bi styliste bi créateur bi yaay xam lu nekk milieu bi mu war. seen dina dépendre ci nit ki ak euh, forme am wala yu mel noonu parce que li jàpp xëy na. des fois des fois nga sol nga ñëwal nit benn affaire mu sol ko mu jekk lool nit gis ko ni ki lii laa bëgg man dama part personnel dama naan bu ko ñëw lu tax man la parce que boo ko ñëwee du la jàpp parce que forme nit ñi yemuñu ku ci nekk ak li la jàpp. Euh, yaay promoteur nuy di Ndiambour euh, boo ñu doon leeralal diggante stylisme ak modélisme lan nga ñuy wax. ah waaw loolu li ma la ciy leeral mooy xam nga tey jii monde bi fi mu toll par exemple tey jii da nga naan tailleur. ni styliste ni créateur ni designer boo xoolee sax léegi loolu yëpp rek dañuy boolee sax di wax moo bi designer. en tant que promoteur laka nga ngay dundee par yenn saay milieu bi euh, comme ni di njàmbur difficulté yi si am mën nga ñu ko leeralal. voilà justement mën naa difficulté yi mën naa jël exemple par exemple tey jii comme danoo nekk ci cent pour cent mode waaw nuyu di njàmbur moo nekk en actualité dama bëgg ñu wax ci 100 pour 100 mode nga. parce que mën naa ni difficulté yi mën ta wax déjà premièrement sa temps lay jël yaa ngi dégg des fois euh, nga dugal projet parce que tey jii mën naa ni doo am sponsor comprendre nga loolu tamit difficulté la aussi tamit nga def solliciter les autorités administratives ñoom tamit du duñu duñu duñu réagir loolu tamit difficulté la difficulté la aussi tamit des fois aussi tamit produit bi nga bëgg aussi tamit doo ko am comprendre nga loolu yëpp ay difficulté la yoo xam ne tey ji wala nga ñëw ba ci jour bi ay contrainte maanaam yoo xam ne ay imprévu yooyu tamit ay difficulté la mais tamit tout lépp rek dafa laaj rek une bonne organisation. nee nga da ngeen di am ay jafe-jafe kon fan ngeen di tirer moyens yi pour organiser xeeti événement yooyu. Euh, qui châtie bien aime bien maanaam nit ki sa bay bay sa weewu tànk ndimbal na ca fekk loxol borom yow yaay njëkk jël sa moyen teg. nit ña fekk la ca mais tamit comme par exemple am na structure boo xam ne tey jii mi ngi fii di jàppale jeunes yi ku mel ne la GIZ moom tey ji moom moo accompagné 100 pour cent Modou kooku mën naa ne charge euh, événement bi la majeure partie moom jël na ko kooku mu ngi lay jàppale. parce que kon donc tey ji loolu bu fekkente boo ci amee yeneen ñaar et tout ça kon mën nga dem ba tey ji organisation da nga am fit di teg yu bëree bari bari bari ba bari. Euh, merci Bamba par rapport ak loolu ngay liggéey sa taxawaay nakal nga taxawee euh, ci milieu mode bi lan mooy sa taxawaay. taxaw ci milieu mode en général man li may gën a yëngu moom c'est des événements comme yi défilé de mode ben moom laay def en plein waaye mais ci ginnaaw ci ci coulisses yi ci backstage yi waaw commencé ci casting bi. ci dispatching de design bi ci ordre de passage bi ci chorégraphie yi ma koy def ak euh, Paul. kon mën nañu wax ci wàllum organisation. ba organisation mais en coulisses waaw cabine yi c'est mën nañ na gestion de cabines ak direction artistique. est-ce que par yenn saa yi ce choix dina xaw a difficile. ben évidemment surtout ci euh, ci casting waaw c'est difficile parce que produit daf fi am on a assez de filles de bonnes filles. yu am mensuration ku nekk dina mérité toog ci place bi ngay jël mais c'est un choix à faire malheureusement. kon par yenn saa yi nga dund am bras du choix. ben évidemment. ok euh, Miss Saint-Louis yéen da ngeen di faral di def li est-ce que dina leen di arrivé léeg-léeg euh, ñu solal leen ay tenues yoo xam ne da ngay dox mais daf lay leer que ni ne doo nekk à l'aise ci ci tenue ñu solal la di tenues yoo xamante ni t'es pas à l'aise dafay sexy des ñu solal euh, loo xamante ni mooy loolu ci aimes pas mais parce que on a opté pour le métier donc bu ñu solalee dañuy yéeg rek défilé après génnaat amuñu amuñu choix wax styliste bi du ma ko sol bëgguma ko voilà. da ngeen koy def dif da ngeen def difficilement wala. lu fee bon des fois c'est difficile des fois jox la loo xamante ni c'est compliqué dafay sexy trop mais quand même bon da ngay sol rek dem. naka ngay dundee milieu bi ak injure yi si nekk. waaw dafa nekk milieu bu bëri ay injure aussi parce que bon dafa bëri ay euh, nit ñi dañ ci bëri ay arrière pensée parce que boo nee mannequin nga ñuy xalaat ni leneen ak leneen la gars yi dañ lay juger naan mannequin yi ce sont des des trucs quoi genre. par est-ce que foogoo ni loolu ñuy waxal mannequin yi am nañu ci nekk. waaw d'une part c'est vrai d'autre part non. ah est-ce que doo ko dund par yenn saa yi. loolu par yenn saa yi cabaxal ci suuf yooyu noonu wax. non non. <laughs> Euh, est-ce que casting yi ngay def yaa ngi si gis sa bopp xale yi ngay boole par yenn saa yi est-ce que yaa ngi am difficulté pour boole leen ci benn milieu ñu euh, pratiquer mode bi. casting yi mooy genre euh, man nag bi ma tijjee sama agence c'est récent quoi yàggul le le 27 avril bi passé bon léegi maa ngi defaat beneen casting yow en ligne yaa nga xam ni. bon sentir naa ne sama agence dafa xaw a am benn manquant tu vois léegi bon ma defaat beneen casting pour renforcer profil yi parce que aussi tamit bon sa agence tamit boo ko yoree dafa da da nga war a am profil yu nag différent quoi parce que aussi parce que nit ñi ça dépend profil bu la laaj rek fekk ko fi genre da ngay pare quoi pare ci côté yëpp ci côté profil yi. voilà euh, li ñu bëggoon xam aussi euh, euh, muy Paul. Euh, est-ce que euh, naka ngeen di def euh, pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a ci agence bi. waaw ñun moom bon man ñi nga xam ni dañ ci bëgg a dugg bon parfois nit ñeema nit ñi ñoom ñoo may boole ñoom ñeneen ñi tamit dañ may suivre sur Facebook wala wala sur Instagram dañ may contacter man tamit dama am samay critères bopp comme ça parce que aussi tey. man kenn mënul gàtt mu ñëw nga koy jël di ko tardel kooku mieux vaut que nga wax ko réalité yi nag am. kon bu gàttee da nga koy éliminer du du bokk. man kinaa bi dafa am dafa am ay critères yu muy demander quoi genre man pour l'instant mannequin podium ci laa gën a basé wu quoi. waa yooyu nag yow dafa am ay propres critères am quoi. léegi nag soo ma contacter genre bu fekkee ni critères yooyu yow répondre ko genre mun naa la conseiller nga dem nekki genre euh, beneen genre modèle photo wala leneen modèle photo tamit dafa am ay critères boppam waaw c'est ça quoi waaw ah, man kay dafa bëri. na mais mënuñu continuer parce dañoo bëgg dalal yeneen invité ñu bàyyi as borom 72 heures bi tàggatoo ak téléspectateurs waaw euh, avant tout je vous remercie donc infiniment franchement parce que mën naa wax ni remerciement yi am na fu mu commencé mais amul fu mu jeexee donc li koy waral mooy euh, je suis je trop ému parce que euh, si ñi ma nekkal nit ñi ma nekkal nii. dama sentir sama bopp que ni donc j'ai fait un effort pour que tey tout le monde vienne chez moi donc ça me fait beaucoup de plaisir donc ku ci nekk am nga loo jàppoon naa da nga ko bàyyi ba pare ku fi nekk ku ci nekk bi ngay ñëw tu dis que nii fi ma jëm on n'a pas on m'a pas fait un chèque pour que ma dem fa kenn jox ma billet en espèce pour ma dem fa amul kenn kuy taxaw fii nii da nga ma demander cachet pour ñëw donc tout le monde y a personne qui demande un cachet pour venir ici. Euh, juste pour dire que ni euh, mannequin yi fi def ñi nga xam def nañ déplacement ñëw fii ñëpp aw ma seen fay maa ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm. ndax euh, mënoon na demee neneen mais ku ci nekk da nga bàyyi lépp loo jàppoon ñëw uniquement pour jàppale ma ci sama bis te laajoom un franc donc franchement merci à toutes les mannequins franchement merci aussi à Tra donc moom it moom mi nekkoon ci bactège bi franchement aw ma fayam Tra bokk na si ñi njëkk ñëw te ba mu ñëwee ba léegi nelawul chaque jour chaque instant Tra dem na ba dépasse génn na sax gaamu léegi dem na sax si sama événement je dis ba génn gaamu sax ku gérer euh, bactège avant avant avant événement bi di commencé ci la commencé ak man ci organisation bi am nga lii mbaa dara manqué wul defal tout donc kooku dem na bu mujj gi da ku ku ñëw sax nga yaakaar moom événement bi donc franchement merci Tra yàlla na la yàlla jàppale ci li nga nekk yaa ko xam li nga ci bëgg yàlla na ko yàlla defal waaw ku la xamul rek moo lay tooñ mais borom xol bu set nga yàlla na la Seex Hajji Maalik Fay donc di sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn Bamba tamit la même chose il la là depuis jours avant l'événement donc moom bi ma ko nee Nuit du Njàmbur partenaire la ci sama événement depuis boobu ba léegi moom it amul jàmm il a il a tout fait il a tout donné pour que réussite événement bi mën a am franchement merci merci beaucoup Bamba Fall yow it li nga bëgg ci Nuit du Njàmbur yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal merci à Fun Prod aussi la même chose samay partenaire lañ depuis au début ba léegi ñoom commencé wuñ tey affiche yi ngeen di gis ci événement bi la plupart ñoom ñoo ko defar. te demandé wul ma un franc pour jàppale ma communication depuis moo ci duggee ba léegi lu ci nekk ñi ngi koy jéem lu nekk ñi ngi koy xalaat pour def ko donc maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn kenn kenn kenn kenn plus particulièrement nag euh, Baye Fall Bathily Baye Paco Mbëgge Vision moom et son agence ñoom it def nañ seen effort le maximum la même chose puisque lii rek lañ am Saint-Louis quoi lii rek lañ am de effort bu amee kenn di ko def ñëpp ñëw jàpp ci et toutes les stylistes de la région de Saint-Louis tamit ils ont fait ah. beaucoup d'efforts tamit maa ngi sant leen gërëm. Tra ok Tra kon naka la ñu mën a def parce que souvent dañuy wax ne ñi nga xam ne ñooy euh, def événement yi dañuy am ay jafe-jafe dire kilifa yi ngir ñu jàpp ci naka la ñu war a mën a def ngir jaay modd kilifa yi ñëw jàpp ci événement yu mel nii. pour man problème que ça du du styliste yi du événement yi en fait. c'est problème mode la en mm. Sénégal fii euh, mode structure yi ñu ko amul structure rawatina ci man mannequin yi mu des tam fédéré wu fédéré wu ñu. amul fédération bu leen di boole comme ni ni comme ni ko tailleur yi amee. fédération wala d' association mais def d' être fédéré fait dañu fet ñoom ñu seen biir ñu defa jaxasoo en fait que ça soit ci ci ci comme ni muy xewee ci yeneen capital yu mag yi parce que fii créativité mi ngi fi am na produit contenu mi ngi fi lépp mi ngi fi pour bu réussir ci côté yëpp nag mais pour man. Euh, politique de développement moo manqué que ça soit ci acteurs yi que ça soit ci euh, étatique yi voilà ay Tra lan ngay tàggatoo. waaw juste di leen remercier Souriant TV. 24 actu dimanche di leen encourager aussi parce que euh, initiative bu nice la en plus c' est des jeunes yu gëm liggéey c' est pas une première ñu tase ci ay événement gis na moyens yi ngeen déplacé ak effort yi ngeen ci def yëpp ben pas féliciter leen mais di leen encourager di leen encourager tam di féliciter as. waaw ak acteur yëpp. acteurs yëpp daal ñu ngi leen di ñu leen di di leen encourager aussi. merci beaucoup ñu ngi koy sant baax di ko gërëm Tra kon xam naa dañuy continuer waxtaan bi euh, Ndeye Fatou yaa ma ko gën a jege amaat nañ beneen gan boo xam ne ci euh, fànn googu lay yëngu ma bàyyi la nga dalal ko nu nuyoog ñi nga xam ne ñoo koy seetaan. waa merci El Hadj Ousseynou Ndiaye tey nag euh, ki ma dendal dinaa sa wax wax si moom ndax ak fu ma mën a nekk ci mode fu mu ci mën toll demaguma fenn macha allah mais yàlla ak moom la mu ngi koy wax Keisha Ka depuis xale ma ko sopp bëgg ko tey ma am kontante ak mbégte toog ak moom ci même plateau pour laaj ko ay question naa ci sawar Keisha Ka l'international nuyu naa la. salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku sa nekk. maa ngi leen di nuyu moi c'est Aïcha Ka mannequin international. balaa ñu xuus si waxtaan bi ak Keisha ñu bàyyi yeneen ngoo yi fi njëkkoon toog tàggatoo wax seen dernier mot. voilà Aïcha Bamba kon nga tàggatoo rek ak ñi lay seetaan. waaw merci beaucoup euh, El Hadj Ousseynou merci beaucoup euh, Ndeye Fatou waa di remercier tamit sama naataango yi ma fekk toogandool ci plateau bi Paul Paul wax dëgg yàlla muy sunu xarit bu baax vraiment euh, mën li muy def di remercier tamit Miss la plus belle de Saint-Louis <laughs> Miss Saint-Louis voilà di remercier aussi tamit Kaycha koo xam ne révélation niw di ñàmbur waaw di wax nag ñi ngi am contentement rek di leen joxaat nag dig daje. parce que tamit euh, événement yi des na am na yu ni préparé parce que dem nañ tournée dikk nañ indi nan projet yi loolu daal incha allah daal ci kanam daal réewli réewli bët. kon ñu bàyyi la nga tàggatoo avant ñuy dugg ci deuxième partie bi. waaw salaamaaleykum maa ngi remercier ñëpp di remercier as moom it waral lii waaw di ko ñaanal yàlla mu yàgg koo def ñun tamit ñu fi yàgg ñëw waaw yàlla baax na. maa ngi remercier ñi ñu invité aussi ak euh, Souriante TV ak 24 euh, Actu merci beaucoup. merci Paul ñu jox euh, Miss Saint-Louis mu tàggatoo moom tamit mi. voilà ñu continuer rek waxtaan bi ci deuxième partie bi ñu dalal Junior nekk mannequin Junior ma bàyyi la nga nuyoo ak ñi lay topp ci ñi lay seetaan. salaamaaleykum waa Sénégal. siyaar ñëpp di siyaar sama mbokk mannequin yeeg styliste yeeg di gërëm ñëpp di nuyu ñëpp. voilà merci beaucoup ñu jox Ladiza Ladiza Kasumay kata booloo vas-y ma bàyyi la nga nuyoo. voilà ok euh, gars yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp voilà di nuyu suñu mbokk yi ñu seetaan. Euh, merci euh, Ndeye Fatou ma bàyyi la rek ak Keisha ñu continuer waxtaan bi très rapidement. avant ñuy jàll si Keisha ñu jox suñu beneen naataangoo bi mu nuyoo. salaamaaleykum c'est moi la Sumankin maa ngi leen nuyu yéen ñi fi toog ñëpp sama gars yi surtout as mi nga xamante ni si moom moo ñu fi dajale. di nuyu waa 24 actu ak waa Surian TV. Keïcha euh, dañu bëggoon xam sa taxawaay si milieu bi lan la la apporteel xale yi yi lay bëggee nga tax bu ñu déggee bu baax am na ñoo xam ne ñu bari yaa tax ñu dugg ci modd bi loolu lan la lay def. Ah, juste dama ci kontaan parce que nga nekk ci dara nit ñi gis la ci bëgg la ci ba tax nga pousser leen ñu nekk ci donc loolu fierté la ci man je peux dire c'est ça. nga def ba egg fii ak euh, yan dëkk nga dem ngir euh, défilé. Euh, genre ni ma def ba egsi fii mooy dara da nga koy bëgg après euh, da nga ciy réussir de toute façon je peux dire dara soo ko bëggee sonn si da nga ciy am li nga ci bëgg au fur et à mesure. Mhm, mais quand même yombul woon ah. ah yombul parce que da nga dégg lu nekk de <laughs> genre soo jógee Diourbel man je suis de ma màgg foofu yaroo foofu nekk mannequin lu garaaw lay doon parce que Diourbel ku ko xam-xam ne dëkk Sëñ Touba mooy loolu. ok euh, yan dëkk ngay faral di dem pour. tournée nationale def naa ko Sénégal yëpp défilé def naa fu nekk je peux dire ak international am na yeneen dëkk yi du Sénégal défilé naa fa tamit. yan jafe-jafe ngay jànkonteel soo demee ci dëkku jàmbur. mën naa ne sax du jafe-jafe de parce que dañ lay invité rek invité la nga ñëw seen défilé donc juste que ne xanaa dangay dem dëkk yi nga xamante ne doo dégganteeg ñoom làkk da ngay obligé di di liyaaranteeg ñoom. di liyaar loolu xaw a métti. des fois dama si génn man moom lu ma dugg dama koy gérer man. waaw ça se voit parce que le fait que nga nekk euh, l' international Kisha Ka. loolu yombul. waaw gis nga noonu la ko yàlla bëggee woon. est-ce que booy génn condition yi dinay baax conditions yi nga xam nañ ci lañ lay teg pour que nga mën a ndox correctement ci podium yi. bon dëkk boo xamul nag nga fay dem. des fois nga am difficulté mais du doon difficulté ba nga xamante ne dina war a jaaxal parce que dañ lay yónnee invitation ngeen waxtaan ba juboo rek nga mën a dem. su fekkee tamit dañu lay wax la nga xamante ne arrangé wu nga toog beneen yoon xaar beneen défilé rek. voilà voilà ñu avancé dem ci euh, euh, junior junior nekk góor nekk mannequin nit ñi ban ban ban xoolin la ñuy am ci yow. Euh, benn côté metti na benn côté mettiwul parce que ça dépend tamit mannequinat pour man amul góor wala jigéen passion la boo xam ne métier la en même temps. mais fii bu dee Sénégal ban xoolin la ñuy xool ci yow par rapport ak. Hmm? sama côté parce que tey jii jikko bu ñuy wane suñu kër buñ demee si milieu bi même jiko boobu la ñuy wane jusque euh, dox bi moo dul benn daa am doxu mannequin am doxu mbedd bu ñu ci milieu bi lu mu laaj lañuy def bu ñu nekkee tamit buñ ñu paree maanaam tenue la boo xam ne dañ koy sol tenue d'acteur la boo xam ne dañ koy sol ci kaw pëjëm bu ñu paree day doonaan junior en personne voilà. doom ay benn benn yoo xam ne xëy na dañuy am beneen bët bu ñu lay xoolee peut-être du ñàkk nga jànkonteeg yooyu. non man jànkonteegu yooyu noonu non nekk mannequin dina la ni góor jigéen nga boo nekkee jigéen dina la ni càgg nga mais pour man am na ñoo xamante ne si duñ ay mannequin duñ ay leneen te liñ bëgg a nekk ñu ngi koy nekk mais nit ki pour man li nekk boo ci amee fulla am ci fayda kenn du la ceeb quoi. ba ci samay xarit yoo xam ne damay ànd ñoom dañ la koy wax mais après yow yaay xam li bëgg nga xam li nga donc du ñëpp ñoo ko comprendre buñ la déggee par dëkk yi. gën a comprendre rek mooy sama famille comprendre nan ma après ñi des ñëpp buñ comprendre garaawul parce que ñoom xam nan ma ko wax. yéen nag en tant que mannequin ban comportement ngeen war a amee pour que loolu ñu leen di xoolee du ngeen ci nekk wala du ngeen kii. waaw parce que mannequin modèle la surtout boo nekkee góor am na loo xamante ni si da nga ko war a wane am na ñoo xamante ni si mënuñu laa baaxal ba nga baax mais am na ñoo xam ne mënuñu laa bonal ba nga bon kon donc soo amee fulla am fayda lépp mën nga cee dem ak ni nga bëgg a mel quoi. voilà euh, euh, mu bàyyi la nga dem ak euh, Lady Dia. en tant que mannequin Euh, est-ce que mës nga bokk podium ak euh, quelque mannequins professionnel yoo xamante ni nit ñi dégg nañ leen. bon effectivement je dirais oui bokk naa ak euh, mannequin yooyu noonu du benn yoon du ñaar yoon.